salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki diaspora bi ñu ngi leen di ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen ñaanal di sakku ñaan ci yéen di ñaan suñu kàddu yi fekk leen ci jàmm di ñaan weeru koor gi nga xam ne moom lañu ne lépp lu ñu ci def te muy aw yiw di bi subhaanahu wa taala nangul ñu ko la ca matali mu mottali ñu ko la mu àggale ko dafa yiw woo xam ne danañu jëriñ fii ci àdduna waaye tam jëriñ ñu ëllëg yowmal qiyaama al axira incha allah di am mbégte ni koy di dajé ak yeen di waxtaan ak yéen sottan tey xalaat laayante bir ngir li nga xamné mom lañu borom bi subhanahu wa taala boole muy réew mi di Sénégal muy réew mo xamné kèn tan lu ko sa bop yalla mom ca nammeem ko muy loolu loo xam ne kon moom moo ko moom ñun moomuñu ko nekk gi ñu nekk Sénégal bokk gi ñu bokk Sénégal loolu du sama alal du sama du sa alal yow mi may diglu alalu borom bi la ñu war ko ko sàmmal sàmm ko nag bokk na ci taxaw temm ci xeex ci wax ci liggéey ci jëf ci xam-xam ci doole ci lépp loo xam ne laaj na alal jooje di alalu borom bi te muy Sénégal ak sénégalais yi ci fexe ba mu tegu ci yoon fexe ba mu mucc ayib fexe ba ni ko yàlla bëggee lépp mën a amandi ndax deful dara ci hasard borom bi lu mu def rek am na lu tax xanaa kay nit ki mooy xam sabab ba wala mu umpule ko ñàkk koo xam waaye borom bi amul lenn loo xam ne bind na ko wala lenn loo xam ne am na ca bëgg-bëgg muy loo xam ne da koo def ci làmbatu ak hasard amut lu ki nekk rek am na atte am na sabab moo xam nga xam ko wala nga ñàkk koo xam kay waaye moom sabab bi moom ala kulli haal borom xel yi nga xam ne tamit ñoom la borom bi di waxal borom xel yi borom bi waxu la ñëpp mu bind doomu aadama yëpp daal di tànn ab lim bu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw a ndaw joxoñ leen ne leen yéen ñii lim bu ndaw bi yéen lay waxal yéen yéen a ma tax a jóg waye du mbolo mu takku mi ndax borom bi fum tuddé mbolo ci alquran rek musiba la cay teg waaw xaafisul quran yi ñi nga xamné yeen ay hafiz alquran yeen ba nopi dégg tafsir alquran yeen ñi may lu ta xam loola fu ngeen gis mbolo yalla tudd ko ci alquran musiba la cay teg kon yalla utul quantité qualité le bëgg motax ci bir mbolo mu takku mi mu am ñu mu ci xamal am ñu mu ci gindu ubbi seenum xel dindi mbalaanu li nga xam ne mooy mbalaan mi leen gis dëgg ñuy gis dëgg di xam dëgg di ko dox di ko wax ñooñee la yàlla gërëm ñooñee la yàlla xamal ñooñee ñooy way borom bi subhanahu wa taala limbu bu takku ndaw la nag du lim ba tax bu la yàlla boolee ca ñooñee dootoo amati fajji ak seen dootoo amati jikko yu bare bare bare bare danga koy ñàkk te jikko par parlo mooy jikko man sama bopp dong ñeneen ñi nañu dee mooy jikko boo xam ne loo bokk ak say morom ci askan wi nga bëgg koo aaki moom moomale ko sa bopp xañ ko say morom yi mbindeefu yàlla bind mooy jikko lu bon jikko sàcc jikko fen jikko jël alalu askan wi jikko nax doomu aadama yi ci loo xam ne teeyul ci bakkan jikko dugg ci diine ji sax ne kilifa nga ci wala am nga ci xam-xam te yàlla xam na na ragal yàlla ba néew fi nga di ci nax doomu aadama yi di lekk seen alal ci diine ji wala aklu fi diine bu ngeen demee ca lax dara yu ña ngi koy wax di lekk alalu doomu aadama yi ci diine dafa xaraam kenn du ko def léegi rek moo bari ci réew di sàcc alalu réew ci diina du jeex loolu lépp dafa xaram kon ñoom ñooñee di def loolu ñooñu bokkunu ci lim bu ndaw boobu yàlla di wax lim boobu ku ca tàbbi da ngay sellal di moytu def lu bon tey digle lu baax te nekk ca kon ku yàlla boole ca loola jamono gu ne war naa feeñ ci say jëf war na feeñ ci say wax war na feeñ ci sa taxawaay sa digganteeg ñi nga bokkal réew mi waaye sa diggante ak réew mi ba dootoo xajji dootoo seet loolu moo tax saa su ne mel na ñun xamuñu ndaxte ñooñe la ñu bokk wala bokkuñu ci waaye daañu rafet njort na ca la bokk doonte wóoruñu dañuy góorgóorlu ak yaakaar ak dunde yaakaar ak rafet njort ne yàlla boole nañu ca ñooñee lu ñu dogu nag waaye comme rafet nañ ci njort moo tax it dañuy jóg jël suñu ay matuwaay ak suñu jëmtukaay fexe ba jikko ya war a làmboo ñooñee nga xam ne yàlla da leen a baaxal xamal leen taf leen ci boppam di leen kàttanal di leen dooleel di leen xamal di leen aar di leen waxloo di leen jëfloo ngir moom borom bi li mu bëgg ci àdduna limu bëgg ci doomu aadama yi ñu di ko ko waxal di ko ko jëmmalal di ko ko xeexal ñooñee képp ku bokk ca loola jamono bu ne am na lool bu xewee wala muy am ca réew ma nga nekk wala ca xeet wa askan wa nga bokk dafay jaadu nga yëkkati sa kàddu bëral ko ba ñëpp dégg ko nga mën a yëkkati li nga xam ne moom la yàlla bëgg ca jaam ya ak ca réew ma wax ko bu doyul nga yëkkati sa doole bu doyul nga yëkkati sa kàttan bu doyul nga boole ñëpp fexe ba ñu xeex ko ba li yàlla bañ te am ay nit yu ko bëgg a jëmmal bëgg ko saxal ngir noot doomu aadama yi ñu àndandoo ñun doonte ab lim bu ndaw lañu waaye ñu fexe ba mën a am ndam ci ñooñee ndax ñiy def lu bon léegi ñoo ëpp ñiy def lu baax ñii xëy di dox ci lu bon ñoo gën a bari ci lim fuuf ñii xëy di dox ci yiw non la ko yalla beugé te non lay démé ba yowmal qiyam ba djéggi sirat ñi tabbi safara insha allah rabbi ñoy ëpp ñi tàbb aljana lolu du samay wax borom bi moko wax kon yalla qualité le bëgg muy lu jafé nak kenn ku nekk ci ñun ñu gor gor lu kenn ku nekk ci ñun wara def effort yu bari pour mëna am mérite mëna bokk ci limbu limbu neew bobé limbu ndaw bobé nga xamné ne wayu yalla yi ñu yàlla gërëm ñee aljana ëlëk ta baña mo te moytoo bokk ci lim bu bari ba nga xam ne safara lañ jëm ñoom ñëpp comme ni ko yàlla waxee ci alquran lim boo dégg mu bari yàlla di ko tudd ci alquran mi mbooloo rek musiba la teg ci ñoom musiba rek yàlla waxul ak mbooloo mu takku yàlla lim bu néew lay waxal ndax qualité la soxla soxlawul quantité kon ñu wote woon tey comme ni ñu koy defee saa su ne ngir seq keppaango gi waxtaane lii nga xam ne tey moom laa fi indi te benn xew-xew bu tiis bu daw yaram bu metti boo xam ne dafa dal ci benn suñu mbokkum réew buy jigéen boole ci jàng ba am ay ijaasaam ci wàllu pharmacie jaay garab bu ñuy fajoo pharmacie yéen ñëpp xam ngeen ko ku wopp ku ne boo gisee docteur ba noppi la cay topp ci li ëpp mooy uti garab yoo fajoo kon kii ab jigéen la boo xam ne dafay jàng ba am ijaasa ci garab ubbi ab bërëbam ñu ko tudde ko pharmacie muy jaay garab depuis 1981 la nekkoon pharmacienne di jaay garab ci pharmacie am kayit yi mu war a am yëpp nguur jox ko ko état jox ko ko ba mu mën a ubbi bërëb bu mu doon jaayee pharmacie bërëb bi mu ko doon jaayee di pharmacie bi mi ngi nekk ci biir ndakaaru ci xolu ndakaaru la nekk ci watu place de l'indépendance amna hotel hôtel bu mag bu fa nekk jàkkaarloog banque CBAO bi nek ci place Protet bi fi ngeen tuddé place de l'indépendance muy hôtel bu mag bu fa nek bo xamné ñi ngi djégé chambre de commerce yi hôtel indépendance le tudd immeuble bu mag bu gudd ku xam ndakaaru xam nga ko muy hôtel bu yagg bo xam demone na barap magat ba hôtel ba xawa a pharmacie bi ma leen wax moo nekk ca suuf yaroon nga ca suuf wala pharmacie bi nekk yàgg fa 1981 la fa nekk ba léegi waaye dafa am lu xew ci pharmacie bi mooy hôtel boobu nga xam ne ci suufam la pharmacie bi nekk di hôtel indépendant dafa am jëmmi jamono hotel bi yàqu ba defaraat ko dafay jafe waa IPRES ci press yeen ñepp xam ngeen ko ndax képp kuy liggéey amna luñ lay dagg ci sa liggéey diko duggal fofé ci IPRES ngir bo démé retraite à la traité ñu am luñ lay fay wér wu nga mën caa dund IPRES moom moo yore wàll woowee benn kuréel bu nekk ci bir nguur gi nga xamné ne day dagale xaaliss bi nga xam ne liggéey dañ koy dagg ci seen payor seen salaire diko fa jenc bu ëllëgé bu ñu démé ret à la retraite li olof tudde euh, retraite wala boog ku dem ba liggéeyatoo jeexal liggéey nekk ci sa kër boo amul koom-koom dootoo mën a dund ñu ne kon nañ leen faggul loo xam ne dañ koy génn ci seeni liggéey gannaaw ba ñu amee doole nekk ay ndaw ndax bu ñu demee ba am soixante ans soixante cinq ans dañuy nekk mag jëm mag dootuñu mën a liggéey dañuy wàcc liggéey dañuy wàcc nag léegi seeni doom war a jël ñoom ñooñee nag booba dañuy yor kër yori doom kon dañ leen a war a fàggul jamono bi ñuy liggéey as tuut lu ñuy tibb ci seen i payoor di ko jenc te IPRES boobee ngir bu ëllëgee bu ñu wàccee liggéey ñu di leen koy mën a jox weer wu ne ñu mën a dund donte bariwul IPRES boobee nag xaalis boobee ñu fay dajale ngir ñi retraité ñu leen koy fay ay milliards yi milliards yi milliards dañ koo jël nag ñoom léegi nag di ko dugal ci wàllum suuf ak wàllum tabax di jënd ay bâtiment di jënd ay logement di tabax ay suuf di jënd suuf daf lu day war la dèjà li ñu waroon a taxaw sax def seetlu ci mooy lu tax ñu jël milliards yu IPRES yooyu di ko investir ci immobilier di ko investir ci foncier ndaam mën naa am njariñ pour jur alal ndax comme xaalis la boo xam ne day tudd ci banque bi rek ngir di ci fay retraite yi war nañ koo mën a def ci ay bërëb yoo xam ne dana jur alal waaye alal ja cay génn dafa war a mën a am jeexital ci ñi nga xam ne ñoom ñoo moom alal ji muy retraité yi yéen ñi nga xam ne yéen Sénégal yéen ñëpp nga xam ne da ngeen retraité amu ci nu ko am retraite bu baax amul xanaa Macky Sall ak Abdoulaye wax ak Abdou Diouf ñoom seen retraite baax na ak Moustapha Niass ak Idrissa sekk ci ñoom seen retraite baax na waaye ku leen weesu ñoom amul kenn koo xam ne ak yenn généraux yi nekk ci armée bi euh, voilà ñenn ñi mais bu dee bu weesoo ñii amu ci kenn ku am retraite bu baax ak yenn magistrat yi nga xam ne ñoom dañ leen a fal muy magistrat wu Macky Sall yi nga xam ne ñoo ànd ak moom di njuuj njaaj ñoom seeni retraite baax na waaye bu ko weesoo amatul kenn ci réew mi koo xam ne boo wàccee liggéey la ngay am comme retraite mën nga kee liggéey kon waruñoo jël alal ji di ko def ci ay investissement di ko def ci ay kër yu ñuy jënd ki ay hôtel yu ñuy jënd ki ay suuf yu ñuy jënd su baree baree bari di fa dugal alal ji ba noppi nit ñi mënuñu leen a fay retraite bu baax boo xam ne mën nañ cee dund retraite vingt mille ki quinze mille ki vingt cinq mille ki dix mille par weer ko ma par trois mois loolu du xaalis au lieu que ñu jël xaalis bi fay ci sénégalais yi ñu mën a dund gannaaw ba ñu liggéeyee lu mat ñeent fukki at wala lu topp ba màggat am soixante cinq ans war a dund nag nag war a seeni njaboot ak seeni sët dem ca jakk yi ya julli nak am lu ñu dundu dundu gubah bu baax ta retraite bañ leen di fay ñu xañ leen retraite yu baax di leen fay retraite yu bon yu cëkk jël alal ja nak di def ci ay immeuble diko def ci suuf ndax lañ cay am ñoom ñi nga xamné ñoom ño nekk ci kaw IPRES di ci mbokum di ci am di ci daaji bu baax di jënd suuf ne dañ ko jënd ngir kurel bi di jënd hôtel indépendance bobu ngir kurel gi waye lepp dafa am ay commission yu ci am loolu lépp ay njuuj njaaj la ngir seeni i jëmmi bopp ak daaju guñ ciy daaju ngir mën a am alal ay milliards IPRES ak caisse de sécurité sociale yëpp ci loolu la ñuy mbuxum te ciy def loolu kenn képp la muy PCA bi nga xam ne mooy Mamadou Racine Sy bu Sénégal Tour Mamadou Racine Sy bi nga xam ne moo dajji caisse de sécurité sociale teg fa ay nitam jaxase ko sàcc milliards yëpp def ko ci suuf soo xam ne lépp ay njuuj njaaj la mu jóge fa Macky Sall yóbbuwaat ko jox ko IPRES mu nekk président du conseil d' administration ba Mamadou Racine si bu Sénégal Tour moom moo def lii lépp jël alalu IPRES au lieu que mu jox retraite yi seen retraite yu baax ñi yokk seen i retraite mu téye alal ja toog te moom ak Macky Sall ak jabaru Macky Sall ak ñi ñu àndal ñuy njuuj njaaj ci milliards yi nga xam ne way liggéeyu Sénégal yi ca seen payoor yi lañ ko daggee def ko ci kees googu muy keesu retraite ngir bu ëllëgee ku ki dem ñu mën laa fay loo mën a dundee ñu xañ leen ko di leen fay ay ay retraite yu cëkk yoo xam ne mënuñu cee dund jël alal ya nag ñoom di ci business di jënd suuf di jënd ay immeuble di jënd lu ne lii mooy li am Sénégal dinaa ci dikkaat ci retraite ci ak caisse de sécurité sociale spécialement dinaa ci def live ndax tey ñax taxuñu maa jóg dama leen cee dugal ndax fi ma jëm te mooy pharmacie bi nga xam ne ndaw si ko moom di ngu Ngunjaab nekk pharmacienne depuis 1981 ubbi pharmacie bi depuis 1982 di ko doxal ba keroog bi nga xamee ne IPRES bu Mamadou Racine Sy bi nga xam ne moom mooy meeru Podor Podor moom la fa Macky Sall samp xañ ay Tall sàll ma fa nekkoon meer na ko bàyyil Racine Sy nekk maire ba Racine moom lañu fal ci élection yi weesu moo fay maire Benno Bokk Yaakaar moo nekk ci kaw bopp Sénégal Tour Racine moo jël hôtel ya nekk Ziguinchor ak Cap Skirring yëpp jaxase ko tëj ko yëpp def ci ay njuuj njaaj moom Mamadou Racine Sy boobu hôtel bi nga xam ne mooy hôtel la Joola nekk watu Kande mooy dem Kande su la route de Kolda hôtel Le Joola nga xam ne moom ak Abdoulaye Balde ak jabaru Abdoulaye Balde muy Aminata gasama bi nga xam ne moom moom laay bëgg a wax fii ci pharmacien bii pharmacie bii nga xam ne mooy pharmacie hôtel Indépendance nga xam ne déglu leen bu baax tur yi ma leen di jox Aïssata Ngunjaam moo moomoon pharmacie bi depuis 1981 ma bëgg ngeen partagé ko mu yaatu. ba ñu demee ba Mamadou Racine Sy mi nga xam ne mooy PCA wu IPRES ñoom ñu ne dañoo jënd hôtel indépendance dañu koy defaraat ba mu baax ubbi ko hôtel bi dox xaalis ba fay génn ñu dugal ko ci IPRES ngir IPRES gën a am xaalis pour mën a gën a fay retraités yi loolu mooy lay bi waaye dañuy wax rek bu même bu gënee am xaalis tamit xaalis ba ñoom ñoo koy lekk ndax ñoo tee IPRES di ko lekk ba ñu defee loolu jënd hôtel bi ne dañu koy defaraat. bu koy defarat kon pharmacie bi dafa wara tej ndax dañuy defarat pharmacie bi daal di nah, génn dem uti feneen ci avenue Jili Mbay ubbi fa beneen pharmacie fi mu nekkoon dañu koy defar mu génn dem fee ne su ngeen paree ma dellu si ba mu génnee dem fee tuxu ñoom ñu liggéeyaat hôtel bi defaraat fépp pharmacie bi fi mu nekkoon ñu defaraat ko ba mu bees tàq ñoom waa IPRES ñoom racine si ndaw si war a dellu si ñoom ñu ne ko d'accord dal di bay, bay signé ben bay commercial contrat ak ndaw si defal lepp ba ndaw si wala tuxu ñew delu si wat ci pharmacie bi nga xam ne ans la fa nekkon ba légui ci souf hôtel indépendance bi ba ndaw si di wat pour delu si wat ci fi nga xam fa la nekkon ndekete ñoom def nañu seen i njaaj ba defar benen contrat jox ko keneen benen jigen bo jabaru Abdoulaye baldala di dom ci Macky Gassama ni nga xam mom lañ tudde Macky Sall nekkon fatik di Aminata Gassama nga xam ne mi ngi ci pale bi moom ak ñoom Macky sàll benn lañu ndax baayam di Macky Gassama moom lañ tuddee Macky Sall mi ñu def ay njuuj njaaj fexe ba def beneen baay beneen contrat defal ko a Gassama pour xañ ki nga xam ne mooy ay Aïcha Ngunjaam mi nga xam ne moom moo fa mas a nekk 1981 ba léegi te defaraatam nañ ko beneen baay commercial contrat pour mu dellusi ci pharmacie bi léegi liggéey bi jeex na tey jii may wax ak yéen pharmacie Sénégal yëpp dañoo tëjoon tey tey pharmacie Sénégal yëpp dañoo grève ndax lan ndax dañuy solidarité dañoo ànd ak ndaw si nga xam ne mooy Aïcha Ngunjaan mi nga xam ne moom lañu bëgg a xañ place bi tey jii tey yéen ñi nekk Sénégal mën ngeen ko firnde pharmacie yi tey dañoo tëjoon dañoo jëloon tey demi journée du journée bi yëpp waaye am na benn moitié xaaju bis bi lañu jël ne duñu jaay kenn garab tey comme ni ko sage-femme yi dafay woon démb na kenn du wasin tey pharmacie yi def nañ lu ñu mel ci xaaju bis ndax lan ndax nee nañ lii am ci biir ministère de la santé njuuj njaaj ji fi nekk ci pharmacie bi ci hôpitaux yi lii du dëgg du yoon lii dafay bëgg a ëpp li xew ci nguurug Macky Sall gi du dëgg du yoon kumba am ndey kumba amul ndey ku ànd ak ñoom ñu jox la ku àndul ak ñoom ñu xañ la lii du dëgg du yoon lii dafay waaj a ëpp il faut que sénégal yi jóg taxaw Aïcha Ngoundiam mi nga xam ne moo moom pharmacie bi depuis mille neuf cent quatre-vingt-un ba bi ñu koy defaraat ñu génne ko mu ne leen maa ngi dem tuxu waaye bu paree damay ñëwaat ba mu paree mu ñëwaat ni defaraat ko beneen contrat bu bees mu war a ñëw tuxu si am ñu jaar ci suuf defal beneen contrat wu Aminata gasama di doom ci Macky Gassama bu Fatick bi nga xam ne moo dalaloon papay Macky sàll Fatick def ko gardien yaayi Macky Sall di jaay gerte caaf Macky Sall juddoo ca loolee mu ko Macky Gassama Macky Sall mii Macky Gassama nañ ko tuddee Macky Gassama moomu moo jur Aminata Gassama mii nga xam ne moom mooy jabaru Abdoulaye Balde moom Aminata Gassama mii moom ak Racine Sy bi nga xam ne mooy PCA wu IPRES bi jënd hôtel bi nga xam ne ci suuf la pharmacie bi nekk te ñu def seen njuuj njaaj fii pour jox ko Aminata Gassama ni ñu defee njuuj njaaj fii pour jox pharmacie bi Aminata Gassama bi nga xam ne turandoo Macky Sall ko jur ca Fatick ni ñu ko defee noonu la Abdoulaye Balde jabaram jii di Aminata Gassama ak Mamadou Racine Sy mi nga xam ne actionnaire la woon ci hôtel ya nekkoon Casamance hôtel Joola hôtel Néma Kajoor Kabrousse moo sor muy lu ma xam muy dossier yoo xam ne dinaa ci dikk bis wax leen Racine Sy mooy kan noonu lañ defee njuuj njaaj ba jox Racine si ba Racine Sy jël hôtel jola di nga xam ne moo nekk ci route de Kandé Ziguinchor yéen waa Ziguinchor bi ngeen may déglu ñu def ay njuuj njaaj ba Amadou Racine Sy maire Podor peese yaawu IPRES ni mu defee njuuj njaaj tey pour bëgg a jox pharmacie bi Aminata Gassama noonu la defee njuuj njaaj ci hôtel yooyu ba jël benn hôtel bi jox ko jabaru Abdoulaye Balde muy Aminata Gassama toujours la même a Gassama tey bu ngeen demee hôtel Joola moom moo yor exploitation ba na mu def ba jot ko nag loolu maa ngi ciy woo le maire de Ziguinchor maa ngi ciy woo képp koo xam ne autorité nga ñu def ay enquête ba xam hôtel yooyu naka la tàbbee ci loxo Aminata Gassama mii nga xam ne mooy jabaru Abdoulaye Balde ancien maire de Ziguinchor te tey Aminata Gassama boobu muy pharmacienne moo ñëwaat taxaw tey jii aussi dégg nga maam bëgg jël pharmacie bi ci loxo Aïcha Ngunjaan mi nga xam ne moo moomoon pharmacie bi nekk ci place bi depuis mille neuf cent quatre-vingt-un ba léegi ñu bëgg koo xañ ci injustice bëgg ngeen partagé mu yaat dama bëgg ñëpp jot ci dama bëgg mu dugg ci bopp na ñëpp xam ni xew ci réew mi secteur yëpp njuuj njaaj lañu fi nekk ñoom ñooy taxawaat na dañoo bëgg falu député ñooy taxawaat na kërë kërë nañ nit ñi xam li xew te yeewu te jóg taxaw légui bi lolu amé ñu am problème ndaw si bind bi mu bindé né len man place bi man ngeen defal bay bi man ma fi waral né ma fi masa ne pourquoi ngeen bëgg ko jox ndaw sele di jabaru abdoulay Balde di doomu maki Gassama turandoo maki Sall ñoñu tankam lu ko biñu ko tankam moom mu ne baax na commandé matériel la am commandé yëpp pour ñëw dugg ci place bi ñu xam ne du bàyyi ñu daal di dem ca ministère de la santé Abdoulaye Diouf Sarr nii tey Abdoulaye Diouf daal di jël benn arrêté bi mu jëlee arrêté moom Abdoulaye Diouf Sarr mu bind ci arrêté ba ne ndaw si yow amuloo droit dellu ca place ba loo xam ne c'est une affaire civile commercial ministre bi dugg ci. Abdoulaye Diouf Sarr de dugg ci jël arrêté bind ndaw si Aïssata Ngoune Ndiaye mi nekkoon ci place bi ñu bëgg koo xaj mu ne ko yow mënatoo dellu ci place lu ci yoon Abdoulaye Diouf Sarr lan moo ci yoonam mais comme dañuy njuuj njaaj Macky sàll mooy seen bàyyi ci njuuj njaaj Abdoulaye Diouf Sarr njuuj njaaj directeur de la pharmacie et des médicament njuuj njaaj Amadou Racine Sy maire de Podor PCAO IPRES njuuj njaaj ñoom ñëpp njuuj njaaj mooy seen liggéey ci réew mi sàcc ak fen ak góor jigéen mooy seen liggéey ñoom ñëpp ñoo bokk ci mbuus gis nga puus nañ fii doxul ñu dem ci ministre bi mu def arrêté ministériel mu décision administrative mu envoyé ko ndaw si ne ko yow mënutoo dem ca place ba Aïssatou Ngunja Aïssa Ngunja ni mu mën place bi 1981 ba léegi Abdoulaye Diouf sar ba ñu ba ñu pour ba ñu xokkotalee ndaw si def seen i njuuj njaaj defal kee contrat mu ne leen kii mënu fee dugg maa fi nekkoon man maa am priorité selon l'acte unique du Code des obligations civiles et commerciales harmonisé au niveau de l'OADA ki nga xam ne am droit de bail ci benn local su amee ay travaux wala mu am lenn loo xam ne c'est accidentel bu ñu ko génnee di defaraat place ba bu ñu place bi moom mo am priorité ci dugg ci place bi ka fa nekkoon ba place bi yakku buñu ñuy place bi su génnee bu place bi bi beesaatee tàq buñu ñu koy joxewaat mom lañ ci njëkk laaj ndax bëgg nako su ko bëggul ñukoy koy doog jox keneen kon ndaw sa fa nekkoon muy Aïcha Ngoundiane mo am priorité mom mo ci ëpp sañ-sañ mom lañ ko wara jox motax tax ba mu ñëwee waa IPRES ne leen comme yéen a jënd place bi légui defal ngeen ko ba mu baax dama bëgg délu ci wat ñoo ne ko d'accord waye waaye ña ko waxoon d' ay fonctionnaire lañ ñi nga ñoo nekk ci biir ipress bi nekk ci service bi ñoom politique ñu amuñu problème ya di koy defaraat bayam signal ko ko ba mu baax ne ko mën ngaa dellu ca place ba waye di ko ñu nekk ci kaw yëgee racine ci tay sa yaaw ipress comme ndaw si day dugg ci pale bi di génn Macky Sall mën nañ tuddee baayam Aminata Gassama te bëgg na place ndax amoon na moom pharmacie feneen foo xam na ma ko amee woon ca Lamine Gueye bi mas mu jóoba ko jaayoon pharmacie ba mu nekk fa di njuuj njaaj ci ba pharmacie ba daanu banque bi jël bâtiment ba pharmacie bi yëpp jaay ko ndax xaalis ba mu fa leboon fayu ko mu amel xaalis banque bi banque bi nangu pharmacie ba jaay ko bâtiment ba yëpp moom Aminata Gassama jabaru Abdoulaye Balde doomu Macky Gassama turandoo Macky Sall tey moo ñëwaat fii bëgg a njuuj fekk ndaw si moom defal nañ ko bàyyam redoublé nañ ko parce que moom moo ci am droit ndax moo ci gën a sañ ndax moo fa mas a nekk ba ñu ko yëgee nag ñu gis nañ ci suuf ci biir IPRES bi service yi ñoom defar nañ li ñu war a def normalement signal ndaw si contrat am ñi ci kaw Racine si ak directeur yu IPRES ak PCA bi moom Racine si ak dégg nga maam Abdoulaye Diouf Sarr ki ñoom ci seen kaw ñu réunion nag def seen i deal nag ne ndaw si il faut que ñu xañ ko jox ki nga xam ne ñu nag moom a ànd ndax mooy turandoowu mooy doomu turandoowu Macky Sall muy Aminata Gassama di doomu Macky Gassama turandoo Macky Sall Abdoulaye Diouf sat na cipp dugg ci bir mbir mi nak ak wa direction de la pharmacie et des médicaments ñu dugg ci bir nak tek seen complot Abdoulaye Diouf sat daal di bind ben arrêté envoyé ko ndaw ci nako place bobé di fofu nga massa nek nekk te ñu defaraat ko ba mu baax mënatoo faa dellu pour kan pour jox ko Aminata Gassama da koy xagn Aïcha Ngoundiane li ma wax ni nak document yep mi ngi ak man su ma paree ko posté ci sama page li ma leen wax yëpp arrêté ministre yi la ci xew yëpp lépp j'ai toute la documentation dina ko posté publier ko ngeen partager ko parce que c'est de l'injustice Aïssa Ngoundiane xaw ma ko tey laa mos a dégg bi mais ñun nous sommes dans la citoyenneté dëgg la ñuy xeex par parlo wuñu képp ku ñu teg injustice daañu ci xeex ba nga am justice loolu mooy suñu credo loolu mooy suñu sacerdoce nous ne sommes pas dans des clivages nous sommes dans la vérité, dans la solidarité et dans la justice. Nous sommes dans la citoyenneté qui est en mouvement. Nous sommes mooy pas credo députés tax parti Nous parti député mais parti je ne suis pas adhérent d'aucun parti même si je soutiens Ousmane Sonko comme candidat je soutiens euh, comment dirais-je mais je ne suis pas encarté oh ma carte que Mon ne suis ma candidat parce que duñ jël d'accord a ci problème mais moi je suis dans la citoyenneté je suis dans un combat de citoyen parce que loolu pour man moo gën a kawe surtout combat wu parti et je l'assume Comme, bi loolu amee Abdoulaye Diouf Sarr bind benn arrêté ministériel daal di koy signé ne ndaw si mënatoo dellu ci sa place bi nga mas a nekk depuis 1981 ndax lan ngir bëgg ko koo xaj moom Aïssa Ngoundiane pour jox ko Aminata Gassama bi nga xam ne ni ngi dugg ci palais beeg génn moom ak Macky Sall ki Faye ki Gassama famille même famille bi la Gassama Sall ak Faye ñoo tee réew mi rek lu ñu bëgg rek damm loxo jàmbur yi baadoole yi xañ leen ko dem ci justice kërëb kërëb jaxase bi loolu amee ci bind ndaw si ndaw si daal ne mais décision ministre bi c'est pas normal ministre bi yow li ko def da ngaa jéng man lii sama droit la maa fi mas a nekk mat na boobaak léegi mat na fanweeri at ak lu ëpp ngeen jënd ko ne da ngeen koy defar IPRES jënd ko ne da koy defar ma génn ndax du fa toog ci poussière bi waaye ba ngeen defaree ba mu pare ba lépp bees man yoon man na ne maa am droit man maa war a njëkk jël su ma jëlul keneen soo ko jël mais mun leen a jox kenn te jox ngeen ma ba si ak man contrat am ñu jaar ca kaw bëgg koo jox keneen ndax kooku dafa bokk ci yéen da jabaru Abdoulaye Ba Macky Sall sant Gassama ngeen bëgg ko jox Faye Sall Gassama mooy famille boobu ñuy wax rek la famille triptyque la Faye Sall Gassama lu ñu bëgg ci réew mi def ko réew mi pour ñoom ñoo ko moom pour ñoom réew mi Faye Sall Gassama la sant am nete Gassama ndaw si ne du may xëccoog yéen yow ministre bi ñu dugal la ci nga signé benn ne man damaa war a génn du ma fa dugg sot ndaw si jël ay avocat jël dossier bi ak arrêté ministériel bi yëpp ak fond de dossier bi jox ko ay avocat am xool dossier bi gis na lii ay tappale la ñu dem daal di porter benn recours def benn recours au niveau de la chambre administrative de la cour suprême dem ñaxtu ji fa dem cour suprême dans la dans sa à chambre administrative dañoo am client boo xam ne dafa am droit de bail contrat commercial depuis 1981 moo fi nekk IPRES jënd bâtiment bi hôtel bi defaraat ko moom mu génnoon ci temps travaux yi bi travaux yi jeexee ba bâtiment bi bees moom code des obligations civiles et commerciales du Sénégal moo ne képp ko am droit de bail contrat local boo xam ne danga nga fay commerce bu amee problème ñuy defaraat local bi nga génn bu fekkee defaraat nañ ko ba mu baax bu ñu koy joxe yow yaay priorité yow lañ koy njëkk a dig ne ndax bëgg ngaa duggaat wala kenn dugg yaay duggaat ndax yaa fi bañ lay génné diko défar yaata né kon kon bala kenn duggaat yow lañ koy wax ndax bëgg nga so bëggul gi so ko xooli keneen te moom bi ñëwaatee ko yow kat yaa fi newoon té dañu wara a joxewaat place bi mu leen man place bi dama koy jël ndax yag na fi liggéey bi ngeen ko doon liggéey képp mo taxon ma génn nek ci pegg bi fi waye man place bi moo ma dama koy jël ñu ne ko kon kay signé contrat bi mu dem signé contrat bi ñu xañ ko ko bëkk ko jox ko le mu expliquer lépp ak ci seen avocat ñu def seen ay yépp dem justice bi ñu demee justice nak chambre administrative de la cour suprême ñu daal xool dossier bi xool lépp xool ko chambre administrative de la cour suprême daal di jël benn arrêt ba mu jëlee arrêt bi daal di dàq li nga xam ne moom la Abdoulaye Diouf Sarr jëloon comme arrêté décision Abdoulaye Diouf Sarr ministre bi tribunal da ko dàq ne li mu def c'est pas légal ndaw si moo am droit dugg ca bërëb ba moom la ko yoon jox kon li Abdoulaye Diouf Sarr nañ ko sànni ca all ba toroxal ko ndax yéen a ngi ay sa ngunjaam boobu bi ñuy defar liggéey bi mu génn fekk na moom mu commandé matériel étagères yi jënd matériel yu bari dépensé ay millions pour que bu liggéey bi jeexee hôtel bi beesaat tàq place bi baax bu ñëwaatee moom daal di jël matériel am dugal boobu ba léegi mat na ay at plus de cinq ans mi ngi taxaw di xaar ñu ngi koy dawloo mën ta fexe te matériel bi da koo jënd lépp ci banque bi yooyu yëpp dépensé ci ay millions ba noppi nanguwuñu ko jox place bi matériel baa ñoom rek ñoo war a am ñoom rek ñoo moom réew mi ñoom rek ñooy am kenn warut a am bu nit ñi dee seen yoon nekku ci bu nit ñi dugg ci géej gi seen yoon nekku ci alalu nit ñi dañ koy yàq nappaaje nit ñi tasaare dem ci justice bi corruption ñoom rek ñoo war a am fay sàll gasama fay sàll gasama ñoom dong ñoo war a am kenn warut am lii mooy lii am Sénégal te boo ko waxee ñu ne da ngay saaga mag ñi boo ko waxee ñu ne ma ngay toroxal kër yi tam la dëmm nit ñi dañoo jàpp nit ñi fipp Macky Sall waratul fanaan ci palais lii dafa dafa doy bi loolu amee kon ndaw si dem ci yoon dem cour suprême chambre administrative jox ndaw si dëgg ay sa ngunjaan ne ko yow yaa am dëgg ministre bi décision yi mu jël dañ koy dàq baaxul yow yaa am dëgg jamono bi ma leen di wax loolu moom ndaw sële ah, ah, Aminata Gassama moom bañ ko defalee les contrats yow daal tuxu moom ñëw ca biir pharmacie bi moom installé wu ca pharmacie bi na nga jaay ay médicaments mais comme mom amul droit jaay médicament ci biir pharmacie bi amul droit jaay médicament ci biir pharmacie bi parce que dafa nek ci contentieux te bu fa jaay médicament man na ñak agrément bi mu am en tant que pharmacien moom ta Gassama mune ne limi jaay ci biir bërëb bi place bi du du médicament para pharmacie lay def deful pharmacie ta Gassama mu bokk ci famille Sall Gassama di doomu Macky Gassama turandoowu Macky Sall dem na ci place bii nga xam ne Aïcha Ngoundiane moo fa nekkoon depuis 1981 ba place bi yàq hôtel ba màggat ba ñu defaraat ko ba mu bees ka fa ne màggat bay xeeñ ba hôtel bi yàqu ba ñu ko génnee ba defaraat ko ba mu baax ba rafet léegi dañ ko sànni ca mbalit ma dem indi seen mbokk ku bokk ci ñoom ku bokk ci nguur gi ne ko kaay toog ci biir place bu bees bi ndax fii dafa baax mooy pharmacie bi gën ci Sénégal un place de l' indépendance nekk ci angle bi avenue Ponty place de l' indépendance muy pharmacie bu porté goo xam ne mooy pharmacie yi gën a bëgg si comme baax na nag ñu bëgg koo xañ ku sant Ngunjaam jox ko ku sant Gassama ndax réew mi say Sall Gassama ñoo moom réew mi ndax ñi fi nekk ay lappato lañu du ñu def dara lii mooy li xew parce que du ñu xeex. moom ñëw na moom Aminata Gassama jabar ci Abdoulaye Balde ñëw na toog installé wu ñu ne ko yow amoo droit ci yoon légalement mënoo fee jaay garab. parce que pharmacie bi ci turu kee la nekk contrat bi Aïcha Ngunjaan lañ defal contrat ba noppi nga ñëw jaar ci suuf ñu defal la yow beneen contrat ñaari contrat mënut a am ci benn bërëb mënoo fee jaay garab bi nga xam ne moom la fi Aïcha Ngunjaan war a jaay yow mënoo ko fee jaay mënu leen man jaayuma garab ñu ne ko loo jaay mu ne para pharmacie lay def para pharmacie mooy beeke beeke wala garab yoo xam ne duggul ci pharmacie dafa am ay dafa am ay garab ak ay ay matériels yoo xam ne moom lañ tuddee para pharmacie pharmacie mooy garab yoo xam ne ordonnance moo la koy may boo amul ordonnance mënoo koo am parapharmacie nag mën na nekk diw mën na nekk gel mën na nekk béykay mën na nekk yu bari yoo xam ne mën nga koo jënd sans pharmacie loolu mooy parapharmacie parapharmacie mooy matériel boo xam ne man ci pharmacie koy jaayee mën nga koo jënd ci xaalis boo amul ordonnance te mën nga koo jënd mais pharmacie pure et dure moom mënoo faa jënd lenn te amuloo ordonnance ndaw si ne man jaayuma pharmacie parapharmacie laay def gis nga ni mu contourner dafa bëgg a njiit moo tax mu ne jaayuma garab waaye ay diw laay jaay ah, bu ngeen demee ci pharmacie ngeen fa gis ay diw gis fa ay produit yoo xam ne du pharmacie loolu lañ tuddee parapharmacie ndaw si ne na loolu lay jaay parce que bu nee pharmacie laay jaay rek yoon day dal ci kawam moom Aminata Gassama de famille fay Sall Gassama avocat yi ndaw si na pat boole wuñ ci wax ñoom it ah, kon jaayoo jaayoo garab de jaayo ba garab man diw laa jaay cocc mukaay laa jaay gel hydroalcoolique laa jaay ay békki laa jaay ak ay dag coupong laa jaay yooyu yëpp ay fara pharmacie man loolu laa jaay man jaayuma garab de Aminata Gassama ko wax de parce que bu nee jama jaay garab rek yoon dal ci kawam parce que am droit bi kee am contrat bi avocat ndaw si ay sëngu njaan daal di daggaloon ñoom jël benn huissier ne ko da dem bi dem ci biir pharmacie bi fi Aminata Gassama ne moom jaayul garab ñëw teg ordonnance am ci ko taabal gi damaa bëgg garab sangam sangam sangam sangam ña fa nekk di liggéey ñëw ne ko ah garab yi am nañ ko mën nañ la koo jaay daal di dem génne dugub si génne génne def ci mbuus daal di koy jaay waa huissier bi jënd bi jëndee jox ordonnance am ñu jënd ko ñu jox ko tikkeem réseau yi mag yëpp mu jël ordonnance am garab yam fa jënd ak réseau yooyu yëpp daal di génn nag dem ci biiram toog def constat d'huissier ki ñu jaay garab yi ab huissier la mu constaté lépp ci ab këyit un rapport def un constat d'huissier en bonne et due forme comme quoi que léegi am nañ preuve ndaw si Aminata day comme Macky Sall mbokam njaaj rek moom nee na garab jaay na huissier bi garab ñi bu jël dossier ñu jël ci dossier am seen dossier nag daal di koy corsé ba mu baax teg am nañ preuve ne léegi ndaw si day fen nee na moom para pharmacie lay def ndege day def pharmacie waaye dafa am beneen problème bu ci am muy la direction muy grossiste yi nga xam ne ñoom ñooy jaay médicament yi parce que garab yi dafa am ñoo xam ne ay grossiste lañ ñoom ñooy fournir pharmacie yi médicament grossiste yooyu amuñu droit ñoom di ko jaay médicament moom Aminata Gassama am amuñu droit di jaay garab Aminata Gassama mu koy jaayaat ci foo xam ne bërëb bi du bërëbam bërëbu jàmbur la dañuy fraude en fait grossistes yi nga xam ne ñoom ñooy jaay pharmacie yi garab yi pharmacie yi di ko jaayaat nit ñi sénégalais yi mënoo jaay nit pharmacie mënoo ko jaay garab lu loolu pharmacie bi dafa respecté loi maanaam am agrément yi am pharmacie ñu identifié ko xam yooyu yëpp ànd mais Aminata gassam mom pharmacie bi nga xamne mom la ubbi te neena du pharmacie para pharmacie la da ko ubbi ci bërëb bo xamne ki ko mom moy aisha ngundiap kon ken mënu ko jaay garab waye nak ga yang ko jaay garab ci souf parce que ci famille Faye Sall Gassama bi la bok ñu ngi jënd garab ci souf diko neub grossiste si pharmacie diko ko ko jaay mu koy jaayaat ci biir pharmacie bi diko neub ne mom jaayul garab waye para pharmacie lay def cosmétique ak consommable ak euh, paramédical lolou la ne mom lay def alors que c'est faux ñu parce que huissier bi dem na foofu ak ordonnance ba mu jaay ko garab ko weccitam gis ngeen gis ngeen encore maguy bi njuuj njaaj Macky Sall mooy bàyyi njuuj njaaj Macky Sall mooy kàngam bi moom njuuj njaaj boo ko yaayam juree ba léegi ci njuuj njaaj la dund ci lay dee képp ko ànd ak moom njuuj njaaj la xamul lu baax lu dox lu baax du dox lu bon rek ak njuuj njaaj sàcc fen ak njuuj njaaj ci loolu la ñuy dox ñoom ñëpp képp ko bokk ñoom loolu ngay dox ñuy njuuj njaaj léegi bi ndaw si moom insisté na moom bi dugg ci place bi mais gu faa dem parce que Aminata Gassama dugg na ca place ba moom ba toog di jaay garabam di ko nëbb di frotte comme ndaw si mi ngi insisté dem na tribunal tribunal jox na ko dëgg ci kaw ministre bi ministre bi gis boppam maire Abdoulaye Diouf Sarr daal di jëlaat beneen arrêté deuxième arrêté boo xam ne léegi. day xañ ndaw si agrément di nga xam ne xam nga pharmacien boo ko pour nga mën a ubbi pharmacie il faut nga am agrément agrément di nga xam ne ministre bi moo ko joxoon ndaw si depuis 1981 boobu Abdoulaye Diouf Sarr juddoogul wala mi ngi jàng ña ko ko joxoon agrément boobu pour que mu mën a jaay en tan que pharmacien jàng na ba am ijaasaan mais pour ubbi pharmacie dafa am ay yenn condition pour nga mën a am agrément am autorisation bi nga xam ne moo lay mën a tax en tant que pharmacien bu jàng ba am sa ijaasa nga mën a ubbi pharmacie di ko jaay xam ko ba noppi nag taxaw ne am yéene bëgg a ubbi pharmacie pour jaay garab ñu defal la autorisation yi autorisation boobu nga xam ne moom la ndaw si amoon ba mu koy xam Abdoulaye Diouf Sarr lu ndaw a ndaw la ma ngay jàng ci école ya forme autorisation boobu la Abdoulaye Diouf Sarr di jëlaat beneen dëkk beneen arrêté ne da koy xañ ndaw si bindoon na ab arrêté ne ko da ngay génn ndaw si dem tribunal tribunal ne ko doo génn yaa am dëgg jël arrêté Abdoulaye Diouf Sarr ba sànni ci àll ba Abdoulaye Diouf Sarr ñëwaat defaat beneen arrêté ne ko léegi sax autorisation bi nga amoon pour jaay dama koy nangu léegi léegi mootoo jaay <laughs> léegi deuxième arrêté boobu lañu def léegi Aïcha Ngoundiane pour xañ ko léegi profession am xañ ko métier am xañ ko jaay garab garabam en tant que pharmacien parce que ñu ngi xëccoog moom muy xëccoog ñoom parce que moo nekk ci dëgg yoon jox na ko dëgg mais duñu ko bàyyi est-ce que yéen yi ngi may dégg déedéet yàlla rek moo ñu si mën a génne loolu di wax moo dongom yàlla rek moo ñu si mën a génne déedéet yàlla duñu si génne de ñun ñoo ci génne suñu bopp yooyu ay caaxaan bàyyi leen jafé jafe bu ñew ngeen tok di wax wax yalla yalla takkalu leen jabar yalla du doori ndig guddi pour seen jabar yi am doon yalla du gis jigéen ju fess tek ju beer ju ngeen ngeen taxaw dem di labat ba tak ko bàyyi leen seen tappale yi bu ñu wax ngeen naan yalla yalla yalla yalla takkul seen jabar seen pooj yi jabar yi ngeen nappaaje guddeeg bëccëg yalla yonam niwu ci koku yeen ko defal seen bop bàyyi leen bu jafé jafé ñew ngeen na yalla bu lu neex ñewé ngeen na sëriñ bi wala ngeen na seen bop ay tappale ngeen ne seen tappale yi rek moñ ci mëna a yalla yàlla ñu ci génne ñoo ci suñu bop ba jabar ji nga yore ak sa bànneex am loolu yoonu yàlla newu ci bu neexee yow la wala sëriñ bi bu naqaree nga jig nga wékk ko yàlla ba kañ yàlla moom xanaa moom yàlla yàlla yàlla dañ ko wet jox ko cëram nag mënuñu lu ñëw ñu dugal ci yàlla ñun suñu yàlla gi daal yàlla yi mbedd la yàlla xam ne lu ñëw nga gàll ko ci loo sam nañu respecté yàlla jox ko cër dafa am loo xam ne yàlla moo ko moom cëram la am loo xam ne cëru doomu aadama la xeex pour am sa dëgg pour taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa a taxawal da koo xeexoo te yàlla mën na def lu defu ko lu yàlla def lu yonent bi yàlla loo ko defal yow Modou Ngom mi bàyyi leen bu ñu waxee ay jafe-jafe yoo xam na a war a taxaw ma taxaw ñun ñëpp ñu war a taxaw pour xeex ngeen may wax ay waxu yàlla c'est décourageant lii du yëfu yàlla du yëfu yonent du yëfu kenn yëfu nit la nit ay nit ay wuyu ñoo fi taxaw bëgg ñoo jaay ak caay-caay ñu war a taxaw futteeku xeex ak ñoom ba caay-caay gi bañ fee am bu fi kenn wax ay waxu yàlla arrêté j'aime pas ça ah sama ëtt bu fi kenn ñëw man di wax ay yàlla baax nag yàlla yéen yu kii rek man yooyu bëgguma ko bëgguma ko dégg bëgguma ko dégg fii loolu ngeen dem waxi ko feneen mais man samay waxtaan bëgguma ay yàlla moo ñuy àtte yàlla dinañu dimbali yàlla mooy yéen attends seen jabar yi bu ngeen nappaaje guddi ana yàlla yéen ñi koy wax bu guddee bu ngeen nappaaje seen jabar yi da ngeen woo yàlla arrêtez faut arrêter quand même bu ma kenn tooñ damaa woor ba heure bu ma kenn wax yàlla yàlla moom la ma koy defal maa ngi koy defal waaye li ba Macky Sall yi def ak Faye Sall beeg Gassama bëgguma ci ku ma ci tuddal yàlla ponkal mu mën a taxaw mën a xeex laay wër man ku mën a xeex ànd ak man ñu xeex laay wër bu ma kenn wax yàlla na leer seule la lutte libère loolu laa gëm man xeex laa gëm man moo wax ak yàlla de na leer balaa sa xol bee jeex ngay wax sa fulla ñaan yàlla baax na ay waay yàlla na yàlla yërëm reste in peace ay waay yàlla la yàlla kii yàlla ñu yàlla atte kii ay waay kii bu ko yàlla jàppee kërëb kërëb yéen seen yàlla yàlla yéen seen yàlla ji yéen seen yàlla yàlla yu muus la xanaa yàlla joo xam yéen seen yàlla ji yéen réegu leen ko sax amu leen benn respect ci yàlla amu leen respect jox leen yàlla benn cër duñu leen génn yàlla respect wu leen ko jox leen ko benn cër ndax lan mboqot ak bañ a xeex ak bëgg lu yomb kenn du ci xeex ba kañ faut arrêter arrêter ça te jéem a futteeku taxaw xeex ñoom lu mu leen jaral ci njuuj njaaj war nañu koo jaral ci dëgg taxaw li may def ni war ba ngoon di ko def di ko ki nga xam ne moom la ñu dal ci kawam di ko jaadale xaw ma ko ci aadama xaw ma ko ci awa mais dëgg mooy dëgg j'aime amul benn tooñ goo xam ne man dama koy dégg xool ko càmbar ko ba gis na ki dañ ko tooñ ma di ko salaat man képp ko ñu tooñ naa la xeexle parce que bëgguma xeex sama ay rawaan sama tabiya amoo ko bëggul bëgguma ko am doole di ko sëf ko amul doole du dëgg du yoon ma xam laak ma ñàkk laa xama ci yam te xeex bi du ma ko teg ci yàlla mën naa koy xeex ba sës yàlla soog ko ñëw mais du ma ne bëreet na yàlla loolu yëf yambat la yëf yi la waaw kenn ku nekk booy war sa jabar guddi doo fi woo yàlla doo woo fi sëriñ doo woo kenn arrêté yàlla yàlla bu doon yonent bi doon xeex ñaata saxaaba ñoo dee ci xeex yàlla fekk ñoo xam ne ñooñu gën fuuf gën ñoo gëm yàlla fuuf yàlla gën leen a bëgg ñun fuuf tudd leen ci alquran na ña nga àjjana ñoom ñëpp yéen sallallahu alayhi wasallam confirmé ko nañu am na ñoo xam ne ña nga àjjana nekk ay saxaaba ànd ak yonent bi xeex ba daanu ci xare dee ndegam yàlla ñoo ngi la defalul loola maanaam muccal leen ci xeex ba dee ci ndegam yàlla moo leen seetaan ñooñu ñu dee te ñooñu ñooñu gën ñun ndegam ñoom ñoo dee ci xeex waxuñu laa ñun ñi nga xam ne defaluñu yàlla dara gëmuñu ko sax faf bëgguñu ko suñ sëriñ si nañ gën a bëgg yàlla suñ jabar yi la ñu gën a bëgg yàlla ganaar bu tàng bu ñu wàjji la ñu gën a bëgg yàlla ñu toog ne nangu ci kaw naan yàlla yàlla yàlla ñun lan lañ defal yàlla ñun ba yàlla du ñuy xeexal ñun lan lañ ko defal dara ko bëgguñu ko tappale du lu ñuy wax seeni fulla ngeen naan yàlla baax naag yàlla mën na ko def bu leen ma merloo yàlla du ñu defal lu mu defal defalul saxaaba yi te saxaaba yi ñoo ñu gën te yàlla da leen seetaan ñu xeex ak seeni noonu ba am ñu ki daanu yàlla dugaleen àjjana ne mbokkat yoo xam ne bëgg lu yomb fu ñu fekk kuy dem ñu nekk ca loosam ba yóbbaale ma lang car rapide du ñu xeex mukk du ñu am oto du ñu dawal mukk lang rek lang rek lang rek yàlla yàlla yàlla yàlla ba kañ ñu façon yàlla ngeen yore il faut arrêter nekk ay nit génn ci lappata gi ay sangu njaam bii nga xam ne ñu koy teg injustice Abdoulaye Diouf Sarr moo ko ko teg ministre de la santé dafa war a démissionner santé bi lekk na alal jëpp jël ay nitam teg fépp c' est des milliards Abdoulaye Diouf Sarr est un multimilliardaire la santé est devenue une santé privée dañ ko privatiser jël médicaments yi di jaay Covid bi ñu jaay lépp milliards yëpp ñu jaay ko jël ay nitam teg ci hôpitaux yi ñuy rentabiliser hôpitaux yi di lekk alal ji nit ñi dee guddi ak bëccëg ñu ubbi seen ay cliniques privées c' est ça la vérité. y' a pas de santé au Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr c'est un grand voleur sàcc bu magla parce que Macky Sall baye mo koy lo ay sàcc lañu Racine Sy maire de Podor Yaw i presse sàcc la Doudou Ndaw bu mag le directeur de la pharmacie et des médicaments sàcc bu magla. Ño dem lek caisse de sécurité sociale lek milliards ya fa nekk sàcc ko Racine Sy mu jógee fa Macky Sall yóbbu ko IPRES mu nettoyé milliards ya fa nekk ñu sàcc ko ay sàcc lañu ñu ngi rey nit ñi guddi ak bëccëg Macky Sall Racine Sy Amadou Racine Sy bu maire de Podor bi remplace Aïssata Tall Sall laa la wax sàcc bu mag la ñoom ñoo nekk ci ginnaaw projet bi di jéem a baak ndaw si nga xam ne mooy jabaru Abdoulaye Balde di Aminata Gassama di doomu Macky Gassama turandoo Macky Sall ca Fatick ñoom ñoo nekk ci nguur gi di gundaa am ko am sa alal ñu damm sa loxo xoqatal la yóbbu la ci justice doole ngeen taxaw di wax wax yàlla Vraiment, Fonto, Diouf il faut exiger sa démission dafa war a wàcc dar daar wala ñu dem ci ministère bi génn ko fii ak wéru koor gi dafa wara wacc wàcc na Sénégal gépp génn Sénégal gi yépp affaire santé publique la ñi wax wax accouchement di wax ay waxu médicament dialyse ak yooyu ndek pharmacie yi ñoo gën a garaawati njuuj njaaj gi nekk ci pharmacie gi tourniat gi nekk ci pharmacie gi corruption bi nekk ci pharmacie bi c'est extrêmement grave ngeen wax ay waxu yàlla taluma yàlla man yàlla lama ko defal moy wéru ko gi mang koy woron maa julli maa selal lolou la sekk yàlla li yéen yàlla neeku ci man la ak yéen contre suñu ennemi ay Macky Sall mo fi kenn waxay wax yàlla xamu leen li ngeen di jaamu xamu leen yàlla xamu leen dara lu ñëw ngeen jaxase ko jaxase nit ñi ak yàlla ñun yàlla dañ ko xam am fuñ ko tek xam li ñu seq ak mom mais xam li nga xam ne yoonu yàlla neeku ci muy nit ak nit tay yéen suma ma toñ tooñoon kenn ku ci neeku ku ma ci toñ bakkar bi dox sama diggante yow yoonu yàlla neeku ci toñuma yalla yàlla pourquoi ngeen ko ci duggal bàkkaar entre nit ak nit bokul la bàkkaar entre nit ak yàlla lu ñoo ngeen jaxase ko xex buñu xex ngeen yàq ko lu ñoo ngeen duggal ci yàlla xamu leen fi yàlla war duggé ak fi yàlla war génné génnee ba Apa like? Bakañ léegi nag tey pharmacie yi nekk Sénégal yépp dañu tëj pendant une demi journée moitié journée tay pour protester syndicat pharmacie bind nañ maa ngi yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp fa syndicat pharmacie yi ñoom ak ndaw si ñoo ànd Aïcha Ngunjaam la ñu àndal pharmacie yi nekk Sénégal yëpp Aïcha Ngunjaam la ñu àndal ñoom ñëpp dossier bi dafa leer mais jaay doole ca kaw la ci pale bi Macky Sall Racine Sy Aminata Gassama ñoom ak Diouf Sarr ñoom ñoo bokk seen i club waa APR ñoo bëgg a jaay ndaw si doole pour fokkati pharmacie bi ci moom jox ko seen kenn ku ànd ak ñoom muy Aminata Gassama di jabaru Ablaye Bal moo tax ñoom ñi ngi grève fi mu toll nii moo tax ñi am na benn canal bu ma ubbi canal bi maa ngi ko ubbi ci euh, nu mu tudd kanaal Akhenaton bi fa dugal document yëpp parce que moo gën a facile parce que des fois pour nga mën ko dugal euh, Facebook il faut nga scanner ko wala kër kër mais boo ko yóbboo ci canalu canalu canal bële nu mu tudd sax damay fàtte damay fàtte kii bi turu Telegram canal Telegram yéen ñëpp yéen ñi bëgg document yi dem leen ngeen dugg ci canal bi effectivement duma ma ko sax def Facebook dem leen ci kanal bi ngeen dugg ci canal su ngeen tàppee ngeen ko gis fa laay dugal document yëpp ku ko bëgg gis nga gis ko parce que moo gën facile damay transférer document yi mi ngi sama téléphone ma dugal foofu yëpp ci biir bi yéen ñëpp ngeen ngeen am accès ci canal bi dinaa wala su paree dinaa jël lien wu bi dinaa jël document yi def ko ci canal bi jël lien wu bi indi ko ci Facebook bi pour que ku mu dem ci canal bi nga dem ci sama ci Facebook bii Facebook activiste yi wala dinaa fa dugal lien bi canal bi ngeen cliquer ci ci bi pour dugg ci canal bi dem xooli document yi ma leen di wax document yëpp naa ko fa dugal su ma pare voilà c'est Mariam Faye Sall qui gère le dossier ça m'étonne pas c'est elle qui gère tout le dossier c'est Mariam qui est derrière tout c'est elle way ñoom rek la ñoom kese la jaay doole ci réew mi ku jaay doole capitaine Touré jaay doole dégg nga maam euh, Cheikh Omar Diagne dugal ci kaso bi jaay doole kii nga xam ne ñëpp la ñuy jaay doole ci jaay doole képp la ñuy dox Guy Marius Sagna jaay doole ñëpp jaay doole ñoom yaakaar nañ ne état gérer état mooy wane doole bi état yore ñoom dañoo yaakaar ne doole boobu pour xokkatal doomu aadama doole boobu pour sëf ko nit ñi la te xamuñu ne doole état boobu doole yërmande la doole bi nekk ci état doole yërmande la doole bi nekk ci état doole dimbali askan wi la doole bi nekk ci état pour aar askan wi moo tax état am doole doole bi ñu jox état joxuñu ko état pour que ñu nekk ci état bi jël ko sëf ko askan wi déedéet dañoo dajale doole jooju ngir mën koo yiree askan wi ngir mën koo yërëmee askan wi ngir mën koo sàmmee askan wi moo tax doole jooju am mais doole gi du noggatu doole gi du as du du du dal ci kaw askan wi ñoom nag xamuñu état moo tax bi ñu duggee ci état natt doole ji gis doole ji rëy ñu ne ah lii de du mburu mburaake la nañ jël doole gi sëf leen ko ngir suñu njariñu bopp nañ jël doole gi sëf leen ko ngir mën a am alal nañ jël doole gi sëf leen ko ngir ñun ñu mën a am doole nekk ay buur ci seen kaw ñoom ñu nekk ay jaam lool lañ bëgg a def boobu ba léegi ñu ngi ci dox te Macky Sall ak jabar ji ñoom ñoo ko taxawal ànd ceeg ay juge ànd ceek ay journaliste ànd ceeg ay sëriñ ay marabu ànd ceeg ay ju ay ay ay ay ay ay ñoo xam ne ay fonctionnaire lañ ñoom ñëpp bariwuñu ñëw téye doole ji di ci daaju di seddoo suuf si sàcc alalu réew mi di jaay doole ñi nga xam ne ay noble lañu nekk ci réew mi nekk ay sénégalais nekk ñu diñ ñoo seen i liggéey di liggéey wu ñu xeexu ñu dugg ñu leen ñu fekk leen fañ toog di liggéey parce que place ba baax na wala liggéey ba xaalis mën na caa génn wala suuf sa baax na wala kër gi wala lu ñu mën a fekk ci mu nekk ci doomu senegale yi ñu fokkati ko ndax jàpp nañ ne ñoom dong ñoo yayoo am ñoom ñoo war a am ñoom ñoo war a moom mais sénégalais yi waruñoo moom fu ñu dugg rek ñii ñu def ndaw si ay sa ngunjaam noonu lañ fay def bu dee ci wàllu suuf si bu ci wàllu liggéey ci wàllu koom-koom bu dee ci lépp réew mi lépp lo xamne ne ju juy génn alal ci rewmi la bu ñu fekkee kenn ku bokkul ci ñoom yar ko dañu fexe ba xoxotal ko jaay ko doole tëj ko ci kaso bi foqate ko ci loxom loolu delu ci ñoom li bakañ ngeen may wax ngeen may wax wax yàlla bakañ li li day continuer bakañ li bakañ mom lay laaj kañ lañu jóg taxaw xex ñun kañ damay laaj lii ba kañ moom lañ def Ousmane Sonko fekk ko muy dem ñu taxal ko tuumal ko da ngaa sàkkuli da siif yàq deram parce que ñoom jàpp nañu ñoom ñoo fi war a toog daa toog ba dool keneen ñoo toog réew mi ñoom la ñu woon ay boroomi alal la ñu la ñu woon Sénégal réew mi ñooy buur ak bum mi ñooy def leen neex parce que ñun ñoo ñàkk fayda ñun la ci ñun la

li ba kañ dañuy bàyyi nii ba kañ toog di wax ku nekk di wax bu paré ku nekk dem bu guddé ku nekk na paaja sa jek lek sa pooju ganaar ñom ñu nekk ci lu ñu nekk ba kañ yàq liggéeyam quarante ans ngay liggéey presque ndaw si jàmbaar doo pharmacie nekk ci place deful dara mësta amal kenn dara toppatul dara ñu bëgg ko jaay doole ndax pharmacie bi fi mu nekk dafa placé place de l'indépendance numéro un dafa placé te ñoom lépp lu baax ñoom ñoo ko war a am ñoom doomi baadoole yi ay doomi Macky Gassamaaki doomi Macky Sall ay doomi doomi doomi bàyyi Macky Sall xum dudd sax man doomi baadoole yooyu ñoom ñoo ñëw nag léegi ci biir Ndakaaru di xëccoo Ndakaaru nag léegi gor suñu fa fekk nga yor am loo amoon ci sa baay wala sa maam wala sa liggéey may la ko ñu fokkase ko ci yow doomi baadoolo yi doomi xaraam yi ñu naan yàlla na a ko rek déedéet dañuy duñ dara ay doomi baadoolo lañ moo tax fu ñu fekk ko am teranga ñu bëgg ko fokkase ci yow ndax baadoolo xamul teranga ñun ñoo juum teg leen ci kaw bopp réew mi waaye danañu saf sàpp parce que dañu war a jóg folli leen ay des fois da ngay am envie xorom effectivement ay làpp da bay wax ñoom il faut ngay xorom des fois c' est ça da ngay am envie parce que da ngay wax sa fulla di leen xaar ci xeex bi ñu naan la ñu ñoom ñu déposé la kër yàlla naan la yàlla baax na yàlla yàlla nañ ko yàlla saafara yàlla ñii bu leen yàlla jàppee mais na yàlla moom nit la koo xam ne saa yoo demee marché fekk ko fa wala yàlla moom dafay mas a wàcc ba kenn gis ko gis ko muy jàpp Macky Sall njett da ngay xool li sa xol bi day yeex tàkk da ngay am envie sax yow génn Facebook arrêté lépp dootoo waxatee kenn parce que da nga yaakaar ne ay nit ngay waxal fekk ay làpp da ngay waxal li ñuy wax yëpp pour lan la pour que ngeen ñëw da ngeen ñoo gën a xam yàlla da ngeen ñoo gën a xam lu yàlla mën ak lu yàlla mënul da ngeen ñoo gën a xam lu yàlla def ak lu mu def da ngeen ñu ko gën a xam bu ñu fa nekkee di wax kay parce que yéen nit ñi lañ bëgg ngeen jóg taxaw ñu ànd taxaw xeex xeex bi waaye wax yàlla kay bu fekkoon yàlla kay du ma laayif man bu fekkoon yàlla rek moo ko réglé dama jël sama kurus toog julli kër kër julli penku ñaan yàlla loolu loolu loolu gënu ma leen di woo su ma leen di woo di wax ak yéen yàlla taxul nit laa soxla fii soxla wu ma fi yàlla nit yéen nit ay xeexkat laa bëgg soxla wu ma yàlla yàlla moom boo ko soxlaa xam naa fi boo koy fekk du ma taal laayif yàlla moom jërul laayif yàlla mooy wax ak moom jëru jëru laay da ngeen nekk ay nit nekk leen ay nit ndaw si ñu ngi koy teg injustice bëgg yàq addunaam yàq liggéeyam trente cinq ans xaw quarante ans de carrière ñu bëgg xëy sëf ko doole jaay ko doole ci lan bànneexu benn nit bu bokk ci ñoom doomu Macky Gassama di turandoo Macky Sall ñu ñu yor nguuru Sénégal bi di njuuj njaaj truand yu bon yoo xam na ay baadoolo lañ ñu sëf ko koo xam ne noble kuy liggéey amul benn luñ ko reproché ñu war ci taxaw xeex ngeen na wax ay waxu yàlla bañ koy sëf loolu ana yàlla fu yàlla newoon bi ñu koy teg injustice fu yàlla nekkoon au lieu que ñu taxaw fàq ay yat dugg ci palais bi génne leen ngeen may ay waxu yàlla ay nit ngeen yéen lii may wax dama bëgg ngeen tasaare ko ba Sénégal gépp xam ko Abdoulaye Diouf Sarr dafa war a wàcc ci saase moom amatu fi place mais du wàcc parce que Macky Sall ci boppam moo koy sant li nekk yëpp Macky Sall mooy doomee xaraam bu baaxul moo tax képp ku muy fal doo baax Racine Sy baaxul Abdoulaye Diouf Sarr baaxul kenn baaxul ay sàcc la ñoom ñëpp mais ju Abdoulaye Diouf Sarr heure bi waru ko woon a fekk mu toog ci ministère bi ndax Macky Sall bu baaxoon du wàccee Eva Marie Coll Seck ministère de la santé di ko jox Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr lu mu xam ci santé lan la mën te ne ni un manager ni un homme du sérail ak sàcc ak doxaan ak fen truand Abdoulaye Diouf Sall Macky Sall jël suñu wér suñu kaaraange yépp jox ko loolu moy sàccal muy sàcc mu def ko candidat Dakar mu ñak yof ñak Dakar ne ngay njuuj ñaj di wo maire yof bi pour di pour di ko jéem nax mais maire yof bi du leen fekk ci ngeen wo ko ci palé beeg wo ko maire moza ci yam do leen déglu mais mom xamna limi def ndaw la te du sacrifier addunaam ci ko xamna nguuram jeex na ma noppi kon nañ seen xel dal ci maire Yoff bi ngeen dégg dem na ci palais bi du mujj fenn parce que kooku mu déggati Abdoulaye Diouf Sall mu jaaxal Macky Sall parce que Abdoulaye Diouf Sall ay moom Abdoulaye Diouf Sall muy maire Yoff mu xeeb ko bay ñoqale naan weeru naan dafa bëgg Dakar léegi ñàkk na la yoroon ci suuf ñàkk Dakar ñaar yëpp la ñàkk ay doome xaram lañu duñu ay nit ñu war a jóg am fulla taxaw fajal suñu bopp comme ni ko maliens yi defee guinéens yi ak ñeneen ñu toog fi naan ay yàlla yàlla da ngeen a gën a gëm yàlla maliens yi da ngeen a gën a ah, gën yàlla fuuf gën leen a xam yàlla fuuf seen jaamu yàlla moo gën a mucc ayib yàlla suñu jaamu yàlla ñu sénégalais ndax ñun ay naafeq lañu loolu mooy dëgg ñu toog fi wax wax yàlla ndaw suñ jigéen ñu teg ko injustice bu toll ni ñu ñëpp ñu war a jóg taxaw fépp ñu may wax ay waxu yàlla imaam di ko dafa taxaw di xaar yàlla malik Doumbouya dafa taxaw di xaar yàlla Mali Guinée yooyu ñaata nit ñoo fa dee ñaata nit ñoo fa xeex Alpha Condé lu ko fa jële IBK lu ko fa jële dañu togon di xaar yàlla yàlla ñu cëpp ñëw ne IBK togal fe Alpha Condé jógal wala nit ñu ñëw fi bu taxaw xex pourquoi mu leen a xeex yéen pourquoi Diouf sar wut a fanaan ci ministère bi santé amul ci réew mi entreprise publique privée la c'est une entreprise privée ñu tuddee ko santé ay mili garab yëpp la ñuy sàcc médicaments yi Abdoulaye Diouf Sarr sàcc mooy liggéeyam hôpitaux yu nekk senegal yëpp dara amu fa xa budget bi deux cent cinq xaw ma deux vingt milliards lekk nañu lépp tout lobby bi nekk ci sante bi ministère la santé ses conseillers techniques bu yu ya fa nekk band yi direction yi nekk bi ministère de la santé billahi lépp lay war def tabarage c'est une mafia c'est une grande mafia moo raw mafia napolitaine santé Sénégal mafia napolitaine bi santé Sénégal moo ko gën gaaw te Macky Sall mooy capot bi Abdoulaye Diouf Sarr mooy adjoint santé amu fi naan ndaw si doon wusul xawma Louga dee mais yéen mais fi jàmm fi ñaata nit ñoo fi dee comme ay lappate ngeen benn nit mooy jóg wasin dee ngeen yuuxu mais yéen ay milliers de nit ñoo fi fi dee dafa fi yàgg ba Macky faloo ba léegi luy jóge fi hôpitaux yi kenn mënut a faju mais yéen li ngeen di wax mu mel ni lu bees la quoi ku ci damm woon leen damm rek dem leen hôpital ku ci damm rek wala nga dem wala nga am góom demal hôpital nga xool sant wér-gu-yaram amu fi Abdoulaye Diouf Sall ay milliards la yore yor ay immeuble tabax ay kër ñoom ci yooyu la ñu nekk wér seen seen wér-gu-yaram yittelu leen toppatoo wuñ leen il xam loolu. canal bi je pense ak Keneton Atondo xaw je me rappelle plus Donc, na xaw naa fa parce que document yi bari faire laa koy je l'avais ouvert pour di fa dugal ay documents parce que Facebook su nga dugal fa document c'est des fois document de su volumineux dafay jël espace c'est ça aussi le malheur de Facebook da ngay am ay document yoo xam ne ko mais Telegram moom bu ngeen demee Telegram bi c'est public bu ngeen bu ngeen demee Telegram ngeen tapé canal ak Keneton Atondo bu ngeen ko tapé di ngeen ko gis je vous mets tous les documents là-bas moo taxoon ma ubbi ko pour dafa def documents yi parce que doo ko def fay 1000 milliards Covid bi daf ci lek daaju ci jënd doxan ci ay gel jëndal leen ci ay 4-4 def yu Abdoulaye Diouf sar bi ñu tok di xol rek nan señ bi baax nag dekk dëkk yu mag yeb de nga man mag ñu bax ñek rew mi réewum teranga la rew mi sutura mag ñu bax ñi fi tëdd xalif seen ko yi kenn ku nekk wax ñu layam lay mi te ñom seen programme ngi dox su moko ko ngeen nak seen khalifi li yépp fi la xewé mais seen khalifi kenn du ci wax kenn du ci wax voilà am na ku canal kii baa ngi nii canal baa ngi nii épinglé naa ko mi ngi noonu ci kaw merci Boynaal Darmi yéen ñëpp dem leen ngeen dugg ci canal boobu képp ku bëgg ay documents yu may joxe dama dugg ci canal bi fa laa koy dugal du ma ko dugal feneen parce que sa c'est ça c'est très pratique mën nga fa dugg mën nga commenter mën nga yëpp documents yi am na documents yu bari yu ma fa dugal ci canal bi bëgg ay documents tu vas t'abonner au canal Telegram télécharger Telegram boo ko télécharger nga dem ci canal bi fa laay def sama document yëpp ku bëgg am accès ay document fa laa ko dugal j'en ai en j'en ai des tonnes voilà c'est ça ak netoon mi ngi doon ma épinglé ci kaw rek image bi voilà kon ngeen dem fa yéen ñëpp comme ça euh, li wax yëpp mi ngi fa documents yi arrêté arrêté yi ministre bi jël jugement bu cour euh, cour suprême bi jël euh, baay bi ñu defal ndaw si yëpp a ngi ci biir yëpp Aminata Gassama nag jubut ku truand la ndaw su sikk la soo xam ne day dugg ci palais beeg génn Macky Sall da koy déglu mooy jabaru Ablaye Balde la woon am na ñu ne ma sax ba léegi tu ne yooyu sama foussé leur vie privée mais euh, officiellement mooy jabaru Ablaye Balde ancien maire de Ziguinchor moom ak Racine si il faut ñu xam lan la ñu teq Aminata Balde ak Abdou ak Amadou Racine Sy seen i ay liens il faut que ñu xam lan la ñoom parce que jox na ko benn hôtel la jola te yoonu Kande ba Ziguinchor ñëw jób ñëw aussi bëgg ko joxaat local bi nga xam ne mooy pharmacie un place de l' indépendance Abdoulaye Amadou Racine si sa diggante ak Aminata Gassama il faut que ñu xam lan la c' est quoi y' a y' a quelque chose ñu ngi ciy enquête nag Racine si ñu ngi ciy enquête parce que yéen da ngeen ëppal nit ñi dañuy xam ba ci na pat yaakaar ne bon après def ngeen benn coup c'est bon xam nañ ko xam ngeen ko bon di ngeen di vous allez vous vous assagir quoi di ngeen di ngeen yem nag xam nga ni du foqale quoi du ngeen du du du du ngeen ëppal mais noppi gi ñu noppi yéen da ngeen jàpp ne ñun ay kaw xool lañu wala ñun xamuñu wala ñun dañ ñàkk fayda ngeen di gën di ñoqali di ñoqali attention il faut savoir s'arrêter Racine si il faut savoir arrêter Aminata Gassama il faut savoir s'arrêter ne nous prenez pas pour des cons non des fois, on laisse passer parce qu'on se dit que vous allez vous calmer. Mais à chaque fois qu'on vous laisse, on voit que vous escaladez. on ne vous pardonnera rien du tout parce que waye lepp nak ñun képp de ñom lepp luñ ñu mëna def ñun ñoko nangul ñun rek la té trop façon ñu tok fi di leen critiquer ah. suñu bop lañ wara yedd ñun ñom luñ ñu mëna def ñun ñoko nangul motax waye tok fi di leen critiquer di leen critiquer di wax naan li rek lool lepp ñun la rek ñun ñun ñoo amul détermination ñoo amul pass pass ñoo amul taxaw tém ñoo bëggu té xéx ak ñom lepp ñun la luñ ñu mënti tek ñom ñun la ñun ñoko nangul di massawu Aïcha Ngu Njaam di ko wax na dëgër na taxaw combat jël nañ ko à bras le corps di woote activiste yi ak képp kuy laaj boo amee accès ci document yi nga taxaw ci wax na ci ñëpp wax am na ñoo xam ne dinaa leen woo ci suuf jox leen këyit yeeg yëpp ñoom tamit parce que ay leader lañu ay leader d'opinion dañuy wax ci média ak télé yi nekk Sénégal ñoom ñëpp naa leen jox document yi ba ñoom ñëpp ñu wax ci ba Sénégal gépp xam njuuj njaaj gi nekk ci biir santé bi Macky Sall ak Aminata Gassama ñu xam mooy kan daañu ut photom teg ko ba ñëpp xamee image am ba ñëpp xam ne kii la Amadou Racine si daañu ci def ay montage def ci ay vidéo monté ko tasaare ko fépp ba nit ñi xam ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi lu fi as gor su lu ci liggéey ci liggéey bu mucc ayib di ko leen njabootam ba mu am lu cay meññ am lu cay ñor ñoom ñu ñëw bundu xatal ko dal ci kawam xoqatal ko boole ko procureur woo juge bi nangu ko foqati ko ci loxoom ndax ñoom jàpp nañu lépp lu fi ball lépp luy njëriñ ci réew mi ñoom ñoo ko yelloo ñoom ñi nga xam ne ñooy fay sàll ak gasama ak ay racine si kii net da ko bandam ko ñoom ñooñu dafa doy dafa doy dafa doy di am mbégte gannaaw euh, sante ngeen ko ci suñuy kàddu di kooku duggee ne yàlla baax di bi mu ko duggee yàlla da ngeen di sentir ne dama mer ndax nit di wax di wax ay nit soxla ay nit ak i xel ak i doole ngir ñu mën a àndandoo xeex moom mu jël lépp dénk ko yàlla te yàlla xamuñu fu mu nekk xamuñu kañ lay ñëw xamuñu ndax dañoo jéppi wala daf ñooy mere ñu teg ko ci loxoom dafa hypothétique loolu daf may merloo waaw ndax man live bi ma def defuma ko pour woo ci yàlla yàlla su ma koy woo damay sell damay jàpp ba set jublu penku xam naa yàlla fi mu ne soxlawu ma ci kenn yàlla moom boo ko soxlaa da ngay wéet yàlla wéetaayoo koy maye kon su ma ñëwee fii di wax ak yéen yàlla indiwuma fi nit ñi laa soxla yéen donc bu ngeen ma ko yàlla da ngeen may gën a xoñ da ngeen may xor ñoñal da ngeen may a énervé te j'aime

man loolu laa soxla sama képpaangoor bi su ma fi woote ñooñu laay soxla ku mënta defi nga noppi sax moom a gënal nga wax wax boo xam ne day génn ci li ma bëgg a wax te yàq li may def li may def mooy nit ñu ne jar laa bëgg yee leen bañ na jar man ay nit njaay laay wër utu may dof kon maa ngi leen di bàyyi naa dugal document yi fële su ma dogal ba pare incha allah yéen ñëpp ngeen dugg fa document yëpp dafa dugg ñu tasaare ko def ci ay live def ci ay montage ak photo yi Aminata Gassama ak Racine si ñoo ñoo bëgg a xañ Aïcha Ngunjaam mi nga xamne fan wéri at ak lu topp la ñeent fukki at moo nekkoon ci place bi ñu bëgg ko nangu ci moom da ci ñepp japp parce que sénégalaise la elle le mérite elle est pharmacienne elle a fait 30 40 ans de carrière il n'est pas question ñu xey rek ben jour rek parce que Macky Sall ci nguur gi la nek Racine Sy ñoo bokk ben bokk yaakaar ñoo nek ci nguur gi rek dañ koy fokkati ci loxam lolu yeen di nga ko wara bañ dañ ko war a bañ daal buñ ci bañ dee parce que loolu du dëgg du yoon te yàlla nanguwu ko kenn nanguwu ko dañ ci war a xeex dañu war a solidaire entre ñu xam ndaw ñu ñàkk ko xam man dañ ma joxee dossier bi yëpp wax ma léegi nekk ma xool ko étudier dossier bi liir ko am ay éléments de probant ay preuve parce que duñu wax ci loo xam ne aussi maîtriser wuñ ko luñ ci wax dañ ci am ay éléments daal de kii il faut que wax ci parce que tamit loolu man mooy sama taxawaay daal mais sama taxaway xex pour deug taxaw xex pour sénégalais ñu jàppalante ci solidarité mais ci deug nag pas ci ay tapalé mais lepp ci deug kessé kon ñu ngi leen ñaanal ndogu jamm di ñaan yalla suñu kaddu yi fekk leen ci euh di ñaan yalla mu ubbi seen xel yi ubbi seen xel yi ubbi seen fit yi ubbi seen xel yi may leen fit da ngeen mëna taxaw parce que ñi sax ñu bari amuñu fit leen yàlla fital xelal leen ba ngeen mën a taxaw xeex bi ñu war a xeex ñu war koo xeex parce que lii mënut a continuer buntu boo ubbi rek moo gën a garaaw beneen lii mënut a continuer kon ñu ngi leen ñaanal ndogu jàmm ñaan yàlla sàmm leen sàmm senegal ba li ñu bëgg ci Sénégal mu aar mooy Sénégal gu mucc ayib Sénégal goo xam ne kenn ku ci nekk lay sa àq ak sa yelleef da ko jote kenn du ko foqati ci yow Sénégal goo xam ne dañuy wegante àndandoo ngir dëgg Sénégal goo xam ne nañ ko yëkkati ndóor ba ku ne mën cee gis sa Sénégal goo xam ne amul kumba am ndey amul kumba am ndey Sénégal xam ne ñëpp ñooy yem ci li Sénégal moom waaye Sénégal goo xam ne day am karange ba doomi Sénégalais yi nekk ci bitim réew kenn dootul dem fenn ñëpp ñibbi Sénégal comme ni ko Libyen yi ne defee woon comme ni ko Qatar yi defee comme ni ko Saudi Arabie yi defee dëkk yi am pétrole am gaz ñoom ñëpp seen doom yi kenn nekkul diaspora bi kenn kenn doo dox Paris New York ne ba gis fa ab saoudien wala ab libyen wala nga gis fa ab qatarien wala nga gis fa ab dubaï doo ko gis ñoom ñëpp ña nga ci seen réew yi di liggéey parce que seen réew yi dañoo am ay njiit yu baax yu jub yu jël alal ja tas ko ca réew ma ba kenn ku ne di ci gis sa bopp loolu lañ bëgg ba sénégalais yëpp mën a ñibbi jóg leen ngeen taxaw ñu xeex Macky Sall baaxul guddi baaxul bëccëg sàcc la fi nekk ak randal alalu réew mi ak képp ko ànd ak moom nañu fàq suñu ay yat di taxaw bon